ne ko ñees mu ne ah, mu ne ko man dey doom laa ci yow jàkka jàngoog kër gaangoog yaay borom yaay jiite yaay ñaan wasifa yaay joxe dépense nee na am toog fële nee na diiran li fa maam ne maam Ablaay joxe dépense mooy jiite ci jàkka ji mooy ñaan ñaanu wasifa luñ indi it mu ne jox leen Baye Ablaye nee na luñ indi mu ne jox leen Baye Ablaye mag ñi loolu lañ xamoon mu ne ba am benn tàgg benn gée ñu julli gée ba noppi di sikkar timiskon di sikkar sikkar su julli gée nee na bi ñu jullee gée ba yeggal maam laay ñës di waxtaan nee na di wax di wax di wax ba mu yàgg muy wax ci ngéneelu tariixa bi nee bi su àjjuma la woon ñeneen di wax ci lu tarixa bi ba yegg ci li Seydina Cheikh wax ne tarixa bi am na ñoo xam ne ku leen gis altine sa yaram araamal na safara ñii ku leen gis àjjuma sa yaram araamal na safara mu ne mu ne leen am na ci magu tarixa bi ak kilifaay tarixa bi waaye Malik mii bokk ci mu ne ñépp gat mu ne mu wax ko ñetti yoon ne leen Malik mii bokk ci mu ne góor gi Ahmad Mbaye Maodo moo ko ne ñes gumba Abdalaay gàgganti ñu mu ne ko Malick mii dey altine talaata àllarba alxemes ajjuma samedi dimanche bés yépp ku ko ci gis sa yaram araamal na safara lii ba ko maam Ablaay ñes di wax Ahmed Khalifa da koo fekkee Ahmed Khalifa mën na yàq wax bii laqad jaakum rasulun min anfusikum laqad jaakum rasulun min anfasikum la ci arab yi ñees wax rek doyloo naa ko ndax min anfusikum min anfasikum xaw ma xam ngeen tafsir yi wala bu la neexee nga jàngee ko laqad jaakum rasulun min anfasikum azizun alayhi ma anittum xarisun aleykum bil muminina raufun rahim fa in tawallaw fa qul xasbiya allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim bu la neexee nga ne laqad jaakum rasulun min anfusikum bu ci nekk am na lu muy firi xaaji Malick si Maodo taawu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh moo wax ma dégg bu yàgg mu ne soo toogee ci jotaay am loo bëgg a wax yàlla yenkewal nit mu wax ko mu ne doy waxu nit kooku ndax amoon nga mébét yàlla yenkewal nit mu waxal la ko santal yàlla doyloo ko te noppi mu ne waaye bul jël mukk rajo bi naan li ma bëggoon a wax di wax na ko waaye mu ne yàq nga ko te santoo yàlla kon man lépp lu ma bëggoon a wax ñaar fajal na ma ko tey jël naa waxu seydi arabi ñas al imam fii leew na ñaseen ibnu cheikh al xalifa bàyyi xalifa maam xalifa ñas wax ba mu wax doyloo naa ko sëkk wëlis di waxal leneen di ca teg ba ca topp mooy jotaayu cheikh bu tedd bii ci suñu biir di doomu cheikh al islaam alxaaji xasan dem suñu bàyyi kii di doomam toog fii jotaayam bii kum doyul dara dootu la doy te kenn rek mag ko ci doomam yi waay waaye lii sedd na xol billaay sëñ bi bu la yàlla fayee lii ñépp xaj nañ ci li ma xam naa ko ndax réew mee toll foofu tey te man waxuma ko mu ñëw mbaaxam moo tax mu ñëw ànd ak ci ndigalu cheikh bi te bu ñëwuloon woo ma ma wuy ji ko billaahi wal kitaabi fu mu mënoon a nekk ci ndakaaru yónni Cheikh Ibrahim mii ne ko neel Chérif Ibrahima dama ko soxla balaa daaneel kàddoom ma topp ci tànkam yi yàlla sedd na ko te moom mii xam na li may wax Cheikh Ibrahim waaw lii kum doy lu lay doy jàngaluma ko joxuma ko wér mayuma ko xaalis joxuma ko dara rakkam ndey Cheikh Umar miin naa ko lool xam naa ko waaye moom mii dey Cheikh Umar ay magam Cheikh Umar nag laa gën a collab rakkam Cheikh Umar laa gën a collaborer ndax Cheikh Umar moom mooy dem fu ne waaw ah, yaa ñi lool tabaarkàlla moom xam na li may wax Cheikh Umar bu ñëwoon fii ba Sikkar yéen ñëpp ngeen mbëkk miir bi léegi ah, ah, sama xarit la Cheikh Umar sama xarit la bu ñëwoon fii ba Sikkar yéen ñëpp ngeen mbëkk miir bi waaw muy ku baax ku baax yaa ñi lool nag moom moom eh, turandoo daal day royaat cheikh <laughs> fa tabaarakallaahu su ko defee nag loolu yëpp mbégte la boo xam ne suñ xol moo fees yàlla sedd na ko tey gëm naa ne lu fi ñaan waay ñaan yàlla yàlla mën na ko nangu waaw fa tabaarakallaahu sa jotaay bii rëy na ci ñun lool lool lool الرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسس يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله العظيم